li nga xamante ni mooy suñu diine moo ñu ko jàngal. Mm. ndax nit lu ko amoon imaan bi mm. ba pare yaroon njabootam ci personnalité. Mm. ak dignité. bu ñu deful dara prestation sax doo xam ne ay lañu. donc am lu mu réussir mooy yar njabootam. ba bi mu. wonee ginnaaw ñu mën a doxal liggéey bu am solo bii ci ginnaawam. loolu euh, kenn mënu ko ko fay. Ah, dañuy jéem rek. Sénégal nag ànd ceeg ñun. Ah, en commençant par le président de la République Macky Sall Aline Sow bi ministre de la culture. ak képp koo xamante ni séqoon nga ak bu Ndiaye Rose kóllëre mm. Bamba nga xam ne mm. doomu boppam la. monsieur le maire waay Youssou Ndour nga xam ne mm. doomu boppam la woon. ah ak la TFM. 2STV. liggéey bi ci def yëpp vraiment amuñu seen fan ñu leen di remercier. si daaj Thioune mention spéciale Youssou Ndour Bouba Ndour mention spéciale Kebs Thiam ah Omaro vraiment ñu ngi remercier ñëpp. ndax nag kiñ ko defal da la. jar na ko waaye mënoon nañ ko bañ a def. dëgg la kon faaw ñu jaajëfal mhm. ñu. di leen di remercier. waaw Youssou bëggoon naa nag euh, dayoom la fi mu toll ci réew mi mhm. euh, ni ko réew mi def la. ba pare moom tamit mu amoon lien. bu spécial ak góor mhm. ndax ku ne xam ne na El Hadj Ndiaye Coumba moo doon denc Adja euh, Madia di Adja Diouf moo topp ci kinne bokk ndey ak baay kon waaye dafa ci bis bi ñaari cër paa bi doon xaritam euh, talaata la génn àdduna dimance kër waale la añ la reen doon xaritam donc euh, waale xam na lu du Ndiaye Rose di représenté ci réew mm-hmm. kon buñ ko tànnee non seulement dayoom bi waaye nag daf ci am cër mm-hmm. daf ci tamit lu rafet mm-hmm. mooy nangu ko tëgg ci ci ci ci ci condition yu yu am ba pare defaat contribution Alaaji Njaay Ali Biram moo leen ñawal yére yu ñu sol ba pare jënd une valeur de un million ci biir donc moom euh, lu taxoon ñu tànn ko mhm. wane na ko bu ñu ko tànnee it ñu ko waroon def na ko. kon ñu ngi koy yàlla di ko remercier. mais mais dañoo gis di doguma la bi fa demee ak délégation bi donc ba muy jënd valeur un million ci biir yi ñu ci ëpp yenn gis ne donc ci gàttal jàpp ni la réconciliation ci ki nga xam ne moo jëm sa diggante yow ak Wally ndax coow la. waaw ma ngoog xam nga balaa xanaa ku ñuy ñi la mooy ñu joxe. <laughs> dañuy laajte rek. <laughs> lu xewoon. man ak Wally mu dara xewul. parce que da nga toog ci TV nga ne Wally mooy kenn kenn du ko wax dëgg mu andi polémique hmm. waaw loolu lu ci maan dara maan hmm. dafa dëgg yàlla hmm. euh, waali suñu produit bu ñuy sonn ci moom ñëpp ñee seeni seen kër toog kon bu ñuy wax ci moom nañu toog seen i kër. maandu ci mhm. c'est important waaye du jotee moom dara ba ilaa yow mhm. ñu. non rien du tout. dara xewul bari sama produit da nag jëmbat garab. ba mu ba mu war a witti ca doom ya lekk nag di doon garab. Mhm, dara y a rien du tout. gis nga ma je suis dans l'événementiel. je euh, euh, la communication. je dans la. Euh, production mais liggéey yooyu yëpp laa ne dama tegandi gum liggéey yu farama ren pour def sama yëfi bopp waay waay xanaa yéen a koy yéen a titre lu leen neex rek waaye leer na leen yéen ni mm. jotoo maag wàll dara dëgg la duñ jot dara mu ngi noonu merci na ko waaw mais def nga de bleu nga may de bleu noir. yëfu taalibe Sëriñ Tuubaa rek <laughs> ay taalibe lañ. Eh. vraiment moo tax ñuy def yëfu taalibe. Eh. mais ci biir loolu tey gis nañu ne ki nga xam ne moom moo di sa goro. Euh, moom la ñuy daal di sargal tey ndax ku la wax xam ne euh, doomam nga daal di takk di suñu yaay Mounass euh, tey ñuy sargal papaam fii nga xam ne fii lañ ko daal di tuddee bërëb bile noo dundee yëf yi. waaw mais sant yàlla rek sooy xool novembre passé maa ngi fi woon. Mm. Euh, donc mu nekk loo xam ne El du Doudou Ndiaye Coumba ku ne war na ko mën a sargal ah et ñëpp la jur bàyyi ñëpp la et mu nekk koo xam ne ne Sénégal dañ koy tiitaru ndax li nga xam ne ne que ci laay yëngu muy sabar mm-hmm. euh, yóbbu na ko partout mm-hmm. yóbbu na ko fu mm-hmm. am na lu bari lu ci liggéey doon ko fekk na ko fi am na lu bari lu ci defit donc mu nekk koo xam ne ne exemple ci jullit ci jikko ci baax ci tabe ci ñeme njaboot ci Sénégal rawatina tey fii nga xam ne ne lañ ko indi muy Sénégal fii la soso donc moo tax kenn ku ne rek képp kuy jaamu yàlla ci percussion képp kuy téye galañu sabar rek ak muy ba ci géer ñi mm-hmm. war nañ ko mën a sargal ndax moom yàgg na amaana nees ko sax géer ñi la gën a dimbale kekk géwél ci li ni ñu xamul mm. et donc moo tax tey vraiment fête man li ma ci mel mm. presse beeg sama mbokk presse bi su suma da ngay gis ne ne bi moom lu mu mosoon a def mm. da ngay gis ne ne que dafa defoon dafa defoon joxoon cër presse moom parce que am na expérience bi festival yi doon jaar ci àdduna bi donc ba nga xam ne ne tey lii ñun ñëpp ko def. Mm. Sénégal ko. Mm. mu ngi noonu ban anecdote nga dund moom nga xam ne sa goro la woon nga dund moom loo xam ne rek doo ko mës a fàtte bi laa yow mi diin. waaw li ma gën a marqué ci moom mooy Japon. ndeysaan. benn année bu ñu ànd Japon te sama biir doon métti euh, mais bi sama biir di métti mu war a balance war a jouer paa bi xamatul lu muy def. donc loolu du ma ko fàtte mukk moment moment bi ma bi ma sonalee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg le temps yi di ma jël si et da gis ne nekk paa bi ñu bari xalaatuñu woon ne loolu quoi biir bi ma doon daanee mm. mais après automatiquement rek da ngay gis réaction bi mu am donc maa ngi ci métit mais maa ngi gis réaction bi mu am mm. et beneen bi ci tegu mooy paa bi lu mu mënti def ci àdduna waxtu julli bi juróom du ko raw mm. maanaam dafa yéene ñëpp jàmm. Hmm. alaaj du Ndiarose dafa yéene dafa nekk exemple ci lu bari. Hmm. soo ko waxee mu ne la buy tox cigarette. Hmm. donte que ñi koy def bon lañu. c'est naan sàngara. bul tox yàmba. bul jaay trop. moom donte que ñi koy def seen bëgg-bëgg la bon ñu de. mais moom loolu toujours loolu rek la. te ba nga xam ne ne que tey li ñu koy defal. Sénégal la ko koy defal. donc alaaj du Ndiarose chaque mois. wala chaque de mois war nañ ko sargal. delloo ko njukkal. ndax papa yi ñëpp. c'est bon Aïcha merci beaucoup Bakane Seck. jaajëf maa fi kontaan Aïcha ñu ngi lay xaar def prestation. incha allah léegi léegi léegi léegi. Aïcha merci jaajëf.